soo fa nekkee rek TikTok amna ay affaire vidéo yo xam do ko gis amna na as boo xam ne doo gis yenn vidéo yi té ñom ñoñu gëna développer Chine ñoñu gëna développer a ak keneen ñoñu gëna développer amna dëkk yo xam bo fa démé ñi dañoo gënné sax Google ci sen dëkk pour pour pour population bi pour bien faire ci enfants yeeg yooyu. bon effectivement man loolu yëguma ko woon mais lu baax la parce que réseau bi réseaux sociaux yi léegi si la di di xastanté di saagante di sullante ay mbóot yoo xamante ni mooy loolu noonu c'est pas du tout normal donc loolu noonu moom dañ koy rafetlu vraiment. correction moom dafa dafa dafa dafay war ci société bu nekk xam nga yaraat nit ñi yaraat nit ñi di doxalee yaraat na ñi seen xel yi parce que xelu nit ñi ñoo ñoo jaxasoo quoi ba tax lépp lu waay neex def man loolu moom je pour loi boobu noonu ànd naa ci loi boobu noonu. waaw képp koo xam ne da nga nekk ci internet bi def naka su noonu dañ la ñëw yoon teg la loxo. yóbbu la bërëb la fa ñu corriger la quelque temps proche la bàyyi di xam lan nga. tamit balaa ñuy utiliser affaire whatsapp affaire internet yoy noonu quoi man sama ma sañoon président président bi day yokku day gëna yokku loxam sa gëna garantir affaire internet bi quoi man mo gis na wa gis na utilité gis na l'importance ah <laughs> loolu la de saa ay saga neexul de saga <laughs> fake news ba pare def waxal nit lo xam neexul peut-être yow bu féké taxaw en tant que artiste buñ ko defoon job sa dina am ño xam mi ngi leen di rey ci famille bi du moom rek nga visé loolu neexul ah pour man décision positive la ah. bon man dama pas personnel suma su TikTok genre gis ku def vidéo saga bon dama lay dama lay dama lay du la saga? mais na la wax loo xam après da lay metti même bu ma la xamul c'est pas du tout normal nga nek ci réseaux sociaux di saga surtout nga nek xalé ay mag ñëpp di lire euh, bon loolu mom rafet ma mako te duma ma ak tamit ku koy def ku koy def tamit bon je veux pas le connaître du tout. monde bi romb nañ fofu noonu xam nga am nañ yeneen facteurs ñu mëna développer yeneen affaire ñu mëna véhiculer ci internet que di sulliwante ay mbotu jàmbur man ma xamala tay tey suba ma tok weer la lan lay jëriñ nit ñi amul ben affaire bu ñu jëriñ nañ nañ nañu conscientiser nit ñi ci internet bi éveiller leen jàngal leen tay ji man par exemple ok suma feñé ci internet rek moy ma ngi wane nan la mixer nan la ñuy masteriser liggéey bu parfait bi may def lolou lay wane mais les lo xamné ni lu salté la duma ko donc na Sénégalais am idéologie bobu non, am état d'esprit y non, yenen pays africains yi ëpp ñu connaissance gënuñ ñoo aay mais dañu gëna mous a mous bi moy lepp lu dañ koy neub li ils les bons trucs yi nga xamné ni jaay société quoi en fait.